dañuy sant bu baax a baax a baax mi temps bi nag wax bi ñuy waxtaan ak xale yi que bien sûr day Wakaam indi équipe bu mag tey indi équipe bu physique équipe boo xam ne mi ngoon rendez-vous tamit ci ci ci action yi am mais am na lu ñu gis tamit loo xam ni war nañ ko mën a exploiter moo tax ñi leen ñi jël seen tànk teg ko ci accélérateur bi léegi ci li ñu wax noonu mais heureusement gëm nañ ñu gëm nañ seen bopp tamit ci moo tax am ñaari bi lu ñu mën a parce que tamit amuñu expérience boobu ay xale yu soog a ñëw lañ ñeneen ñi ay U17 U19 déclassé U17 U19 euh, joué guñ sax match U19 laay wax mais luñ leen

mais dugal leen et puis djema nek ci kaw non la Seydou à la base milieu milieu milieu milieu défensif là waaw mais match bobu contre djaraf dañ jouer 6 minutes de jeu perte suñu défenseur central moom moo gën a jegoon foofu ñu teg ko mais boudé dee dañuy teg Seydou dañu koy tek sans comme sentinelle devant la défense après ci ginnaaw comme ni ngi gisee tey nañ Boubacar Sané musul jouer Ligue 1 c'est la première fois mu jouer xalé la mi ngi foofu toog na 2 ans yo xamné da koy gañu gañu gaañu mais lu ñu mën a jégal baal la parce que xalat nañ ko wala ñu mën ñëwaat mais ci bi sa semaine bi préparé nañ ko pour mu jouer match bi ñëw na jouer na match de tamit bo xam bu correct la euh, mom ak ñi fee nag am expérience tay mëno wax ni que tay c'est son premier match mais non la Dakar Sacré-Cœur mo la non bu ñu jouer dañuy ñëwé dugal xalé yi et puis ñu joué ku ku dem sama ñëw jouer rek ñu jéem avancer fofu tamit waaw xam nga entraîneur mu nek tamit ak ak nu muy nu muy toggee équipe rek ñun xam ne ñu ngi koy utiliser bu baaxa baax mais xam naa entraîneur dina ñëw mais dinañ gis tamit ñun ni ñu koy utiliser euh, mu jox ñu satisfaction ñom tamit buñ ko jëlé nañ ko jéem jaralé fofu foofu bien sûr am nañu ñu fa nekk tamit ñeneen mais ñun niñ koy utiliser bu ko bu ko gars yi jëlee teg ko ñun comme niñ koy tegee xam naa am naa yaakaar ni que dinañ ci am dara